si bis bi nga xamante ne mën nañ ko wax bisub tiis la si dégg-dégg waane bisub tawfeex la ndax xam nga ne suñu borom moom moomam jaam ni saa bu ko neexee wàccee saa bu ko neexee yóbbu moo taxit mbokk taalibe yëpp tase fii Mbàkke si ñetteelu fan bi nga xamante ne moom la ñuy ñaanal Serigne Cheikh Jëmu Fall mi nga xam ne euh, moo nekkoon juróom maam Cheikh Ibrahima Fall. Sëñ Cheikh Jëmu Fall nag woon ki nga xam moo di sëñ mi nga xamante ne moom mooy. sët bi njëkk utu maam Cheikh Ibrahima ginnaaw Cheikh bu bi nga xam moom mooy caatu Cheikh Ibra sëñ moo amante ba mu làkkoo 2006 Serigne Cheikh Fall jëmm utu ko 2006 ba 2021 sunu borom dogal sëñ Cheikh Fall jëmm am toofeex gu yaatu ba liggéeyal ñeent xalifa sëñ Tuubaa lu ko dalee si Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké Serigne Mouhamadou Lamine Bara Serigne Sidi Moukhtar Mbacké ak Serigne Mountakha Mbacké mi nga xamante ne jox na ko liggéey bu am solo mooy liggéey stade Mbacké bi nga xamante ne moom la ñuy rénover euh, gis ngeen léegi mu tollook at. moo taxit gis ngeen mbokk taalibe teew nañu fu nekk bawoo say gox yi fasantikoo ñëw fi Mbacké ngir ñaanal ki nga xamante ne moo di Serigne Cheikh Fall jëmm moo taxit mbokk yi euh, fi ñu taxaw nag moo di bundu këru Serigne Cheikh jëmm Fall. li sama ginnaaw moo di Serigne Cheikh Ndiaye Meng mi nga xamante ne jamono li ñuy wax teen moom moo toog jotaayu Serigne Mouhamadou Moustapha Fall xam naa noonu la woowee. Serigne Cheikh Fall Khady Gueye mi nga xamante ne euh, doomu Serigne Sidi Fall bu Serigne Modou mu daal ñu àndee ay kàddu rek si li nga xamante ne mooy waajuram di baayam di Serigne Cheikh Fall jëm Fall. Euh, ginnaaw bi la nuyoo bu met ba noppi dañ lay jaal di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, di la jaal sa waajur bu Serigne Cheikh Fall jëmm mi nga xamante ne sa waajur ndax moo sa waajur Serigne Sidi Fall ñoo bokk benn waajur ak sa turandoo Serigne Cheikh Fall Khady Gueye ñu bokk benn waajur ñu bëggoon nag Fall nga fàttali mbokk taalibe yi lay teewlu Euh, kan moo doon Serigne Cheikh Fall jëmm. Euh, jërëjëf Mohamed ñoo ngi lay siyaare bu baax di feddali suñu kóllëre di wax ne ñoo ngi naqarlu li ñu bokk àdduna euh, bépp waaw ak umma islamique bépp di ñaanal kii fi nekkoon te ak dundam barkeel suñ borom dellu ko xare ay àjjana fir daw si te yokki leeram te taasuñu ci barkeem sëñ Cheikh jëmb dafa wàcc ndax li tax dafa wàcc Euh, lépp lu am ci yoon yi ko def kon moom amul dara euh, la sëñ Moussa Ka waxoon maamam loolu la def ba xëy na wuy ji ab sangam tubaale togga woon añam bambaa ko jiitaloo ñoñom diggante penko kuy taxe yaakaar naa ne jumaa ji la sëñ tubaa waxoon ne képp ku ci feeñ dootoo nëbb sëñ Seex Jëmb feeñ na ci bañ koy dàkkantelee sëñ Seex Jumaa la loolu bàyyee ma ko jëloon am fu mu ko jaarale nag jox ko sëriñ Fallou Mbacke mu nekk ci jumaa ji ba mu Moustapha moo njëkk a gërëm sëriñ Cheikh jëmb laataa mu fiy dem Mohamed moo wax ne moo ne Cheikh mais de sama doom la la sëñ Touba waxoon sëñ Saliou mu Moustapha waxoon wax na ko sëñ Cheikh jëm laataa muy dem loolee nag yaakaar naa ne moo waral tey lii lépp boo ko sëñ Fallou gërëmee. yaakaar naa ne loola lu ne mën nañ ko cee wax ak yu bare bari yoo ciy dégg. mu mel ne tamit sëñ Cheikh Fall Baye gërëm na ko te am sa ngërëmal doomu Baye dafa jafe. dafa jafe da daa wax ne man damaa am ngërëm kon nag daa toogoon ci ko wér daa wax ne damaa am ngërëm ba ngërëm lool it képp ku ko mas a fekk fii xam na ko sëñ Cheikh bi mu fi nekk amul kenn ku sëñ Cheikh jëm bu mas a sonal te mës a génn fenn mës wax ne nangam laay laaj ci àddiya te lépp mi ngi woon toog fii lépp di dox. kon loolu day waral ne ku am ngërëm rek moo mën a am loolu toog muy dox ci Sëñ Cheikh jëmb lañ ko gën a ràññee ci lañ ko gën a xamee ndax lim am lépp da ko liggéeyal Seera moom amul dara kon nag dañuy ñaanal dañ koy ñaanal ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne moo waxoon ne ngërëmul murit ak ngërëmul tubaab lenn la waaye añ baay wuute ku ab tubaab gërëm ku mu dajal nga sali ko soo ko saliwu sañu koo digaale yow ku am murit gërëm ku mu dajal nga war koo sukkal soo ko sukkalu sañu koo digaale yow waaye ku yàlla gërëm ku mu gërëm sa aajo faju ku yàlla gërëmut ngërëmam ak sikk képp ñooyam daan na adoom ku la mënta jariñ mënu laa wàññi dara sëñ Cheikh jëmb dafa am ngërëm ngërëm loolu nag dañuy taasu tey ci barkeem man mii di wax ak yow yàlla dama dimbali woon Mohamed ma am ci moom sens ba bu ma masaane indi daayira booy wax bala ngaa noppi mu ne dina am dina amam jooju boo xamut yow sa bopp da nga jàpp ne yow doo nga loxo beraloon waaye kenn ku nekk dina amam jooju def na ko ci yow ba nga jàpp ne sëñ Cheikh jëmb dina amam jooju ci yow yaa ko am loolu kilifa loolu nag bi mu dajee ba yaatu ci la ñëpp xam ne sëriñ Cheikh Jëmbu dafa matal dem waaye bàyyi na fi woy woo xam ne dootu fay. Euh, sëñ sëñ sëñ Cheikh Fall doguma la sax bàyyi na fi way bi nga xam du fay moo di mu mel ni moom dafa am toofeer gi nga xamante ne euh, si lu ñu xam ñi mës a liggéeyal Cheikh Fall yëpp ñi mës seen liggéeyal sëñ Tuubaa yëpp mën nañu wax mel na moom moo fi liggéeyal ñeent xalifa sëñ sa euh, sëñ Tuubaa lu mel ni seen sëñ Saaliw ba sëñ Muntaxa Mbàkke. waaw loolu moom day loolu mooy kéemtaan xam nga Serigne Cheikh bi mu fi toog ñëpp jàppoon nañ ne sax lii mu fi def di ko fi def waaye yàlla moo ci wane boppam euh, booy xool ci sëñ euh, euh, Saliou la jëkke bi sëñ Alaaji Baara ñëwee kër gii mu defar sëñ bi ci ili ay po ay millions la fi bàyyi ci ay sànc yoo xam ne tey te mësta sonal kenn kon ngërëm yi mu làq moo bari Mohamed ba nga xam ne boo koy lim mënoo koo lim da ngay def sa yéene kay ci ne sëñ Cheikh jëmb yàlla gërëm na ko ndax fi ko yàlla gërëmee mooy bis bi maamam wuy jee woon boromam di bisub talaata ci la sëñ Cheikh Jëmb Fall wuy jee keroog ba ñu demee ci armée li ba taxawu ko ba noppi sëriñ Muntaxa moo seereel sëñ Cheikh Jëmb ne fii mu nekk dey maamam dina ko fi fekk léegi sëñ Tuubaa dina ko fi fekk léegi ndax laataa muy génn àdduna indil na ma addiya kon laataa muy dem rek yóbbu na jëfam ci li nga lay seereel ci ay xalifaam laataa muy wuy ji boromam yóbbu na jëfam ci sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa gërëm la ko kon ngërëm la yóbbaale ngërëm la bàyyam ngërëm bàyyam moom la ko bàyyam defal ngërëm loolu la yóbbaale ci sëñ Cheikh Jëmm euh, faal ñu gis tamit euh, euh, sëñ Cheikh Jëmm sëriñ Cheikh Ndiaye Mbengue mi nga xamante ne moo ko wuutu si kër sëñ Modou Moussa Fall di sa waaru tamit lan nga mën a andil si sëñ Cheikh Ndiaye Mbengue waaw sëñ Cheikh Ndiaye Mbengue day képp ku ko xam xam ne nit ku dal la nit ku mën a muñ la nit ku teey la nit ku bëgg Cheikh Ibrahima Fall Euh, ba boo ko xamutoon bu njëkk sax am na ñu bari ñoo xam ne xamuñu woon kan mooy Serigne Cheikh Ndiaye Mbéthio waaye ak dalam ak ak ak laabiram ak li mu làkkoo ci kër maamam tax na ba wax dëgg yàlla euh, ñëpp xam nañ ne nag tey bi ñëpp jotee muy Cheikh Moustapha doon na ko te yaatal na ko te mustaxatal dara Serigne Cheikh Ndiaye ku ko xam xam ne nitu yàlla la ku xam Serigne Cheikh Ndiaye xam ne nit ku mën a muñ ku xam Serigne Cheikh Ndiaye nga xam ne nit ku am yitte la te dañuy wax ne yitte lu lu nit am yitte ko ko may. te suñu Cheikh Ndiaye Mbengue dafa am yitte waaw. Ah, jërëjëf euh, sëñ bi benn laaj gu mujjee ndax gis nañu siñ am ni moo nu mel ne mi nga xam ne jamono yi moo fi toog jotaay Cheikh Ibra ku nekk xam ne ne sëñ Abdourahmane Mbacke mu gaynde fan moo nekkoon kilifaam waaye ba mu nekk serafal mate ko sëkk sëñ Abdourahmane Mbacke euh, sëñ Abdourahmane Mbacke si taalibe gi si dal gi ak si xam lu baax si xam ne xalifa Cheikh Ibra xalifa sëñ Tuubaa moo ko yilif si saa si loo ko jox ndigal nag mu dem jébbalu sëñ Mountakha Mbacké loolu tam yan kàddu nga si indi waaw loolu sëñ Ahmed liñ ciy indi mooy Cheikh Ibrahima Fall moo ko waxoon dañ koy ñaanal sëñ sëñ am ni moo Modou Mbenda sëñ borom yàggal ko fi tëwér Cheikh Ibra dafa waxoon ne képp bis bu ma fi jógee sëñ Bamba jóge fi jamono dina lëndëm waaye bu boobaa na ngeen topp doomi sëñ Bamba ndax doomi sëñ Bamba de lu xam-xam gàtt-gàtt xam na lu yor jamono su ko sama doom defu day nee leen ko fi ñukk te dem topp doomi sëñ Bamba kon loolu c'est obligatoire la woon daa di wax ne doomi sëñ Bàmba de ku ko tànqal satal ak ndox bu jàppee ba gesu la nga taqoog loolu tàqali ko loolee maamam moo ko digle soog a dem kon sëñ Abdou Rahmane bu defee loolu xam na ne sëñ Touba ak Cheikh Ibra ñoom dong ñoo mën a ànd keneen mënta ànd ak ñoom kon nag loolu Cheikh Ibra dafa mas wax ne ah ab liir de bu ñëwee ci biirum àdduna ci biirum ndeyam xanaa foofa am réewam ñu ne ko waaw Fall xanaa foofa am réewam mu ne bu ñëwee ci àdduna ñu ne ko ndax mu gën faa yaa mu ne nag ku ñuy tudd di ñuy tudd maag sëñ Bamba nii àdduna ëppee biirub liir noonu lañ la ëppee kon Cheikh Ibra tolluwaayam ci sëñ Touba xamoon na ko dadaa wax ne ku bëgg ci li sëñ Bamba def da ngay def ni ma def ku yegg si maa ngi fi ku yegg siwul maa ngi fi ku ma romb romb diggu waaye liggéey sëñ Touba kenn du ma ci passé waaw daan ne képp ku ñuy tudd di tudd sëñ Bamba nag maag sëñ Bamba nag mu jërëjëf sëñ ma Mohamed dañuy santaat bu baax ne li sëñ Abdourahmane loolu sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra la te Cheikh Ibra dénkaane woon ko xam na ne kii sëñ Muntaxa rek moo war a doon kilifaam ci ak nangoom mu jël ko jox ko sëriñ euh, Muntaxa xam ne sëñ Tuubaa Cheikh Ibra rek a war a mën a topp ci gannaawam lépp mën a baax loolu it ñëpp buñ ko déggee dañoo xam ne da ko delloowaat ci ak taalibe di santaat daal di wax ne bis bii képp ku fi teew ñaan suñ borom dolli laa defal tawféex te ñaa te lépp li ngi ci bëgg ci barkeb sëñ Cheikh jëmb moom de wóor na ma ne barkeb Cheikh Rafal képp ku ko lebal dina la fay man wan na ma ko ca àdduna jóge naa fii Mohamed di defu bis ca Guinée Conakry ñëw fii di ko tàgg laataa may nopp mu ne ma ni nga ko bëggee ni nga koy amee ba ma demee bis ba mboolem luy peresu Guinée mbooleem luy administration Guinée teew nañ ca bis ba te fii la ma ko waxee woon ci Mbàkke kon man dama ci amoonu cër boo xam ne lim ma defal mënu ma ko sax wax waaye damay ñaan yàlla di ko bàyyi bàyyam ba ne ba ko waxoon ne ko moo ne seex mii sama dooma ngërëm la ko yéene woon te ngërëm loolu tey am na ko euh, ñoo ngi koy sant bu baax te di ñaanal fa mu nekk dàq fu mu jóge di sant nag euh, xasida Bichri TV xasida TV di leen ñaanal suñu borom defal leen tawféex ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall di la sant bu baax di feddal suñu kóllëre ndax lu jiitu tey jii amoon nañu jotaay te lépp Cheikh Ibrahima Fall rek ko ko waral yàlla na nga saa borom taxaw ba li nga bëgg ci yoon wi suñ borom leeral la ko ba mu leer waaw jërëjëf ah jërëjëf mbokki taalibe yi jërë ngeen jëf jërëjëf di Serigne Cheikh Fall Khady Gueye mi nga xamante ne doomu Serigne Sidi Fall bi sëñ Modou Moussa Fall la di kenn si man di kenn si ndax xam ngeen ne bisu mel ni moom mënta ñàkk ñu woo ñi nga xam ne dañoo bokk si njaboot gi rawatina sëtoo sëñ Modou Moussa Fall ndax ku dégg li mu wax nga xam ni li mu dund ak Serigne Cheikh Fall jëmm la ku dégg li mu wax xam ni li mu xam si yoon bi la ku dégg li mu wax xam ni li ko maamam bàddil la kon boog sëñ Cheikh Fall Khady ñu ngi lay bégee. di la sant bu baax di jaajëfal mbokk taalibe yi nga xam waxtu bii yéen ñu teewlu fii si Mbàkke si bundu këru Serigne Cheikh jëmm mi nga xamante ne waxtu bi may wax dinañ jamono yi fële ngeen nangoo njaal bi euh, comme ni ma leen koy waxoon sànq rek mbokk yi euh, gis ngeen sama ginnaaw Serigne Cheikh Ndiaye Mbengue moo fa toog mi nga xamante ne jamono jii moom mooy fu wutu Serigne Modou Moustapha Fall gis ngeen sànq rek Serigne Abdou Lahad euh, Serigne Amsatou Mbacke bu Serigne Abdou Lahad Mbacke Xaadimu Rasuul Xudaamul Xadim teew na fi ànd ak Serigne Fallou bu Serigne Aliou Fall sëñ Bassirou Mbacke Abdou Khadre tamit teew na fi ànd ak Serigne Cheikh Lappé mi nga xamante ne doomu sëñ ab Latif bu Mamor Diala ak yeneen kilifa dañuy wax rek ngeen teg foofu seen loxo ngeen daal ñu bàyyi xel bu baax a baax ndax incha allah lépp loo xam ne fas yéene fas yéene ruusee fii si Mbacke rek dee leen ko andil wanal leen ko génnee magoon taalibe yi loo leen ñu wax li nga xamante ne moom lañ dund ak Euh, Serigne Cheikh Fall Jëmm ak moom la ñu xam Cheikh Ibra rawatina li nga xamante ne moo di kàddu seere juróom euh, euh, ñett fanu ñaanu Serigne Cheikh Jëmm Fall xam naa bés kanam incha allah mbokk taalibe yi